asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki diaspora asalaamaaleykum mbokki àdduna nee naa leen fii si Actubuzz TV lépp li nga xamante ni soxal na leen yitteel na leen da leen koy daal di indil tegal ko si euh, télé bii di Actubuzz TV tey nag comme ni ñu ko daal baaxoo di ko defee lépp loo xam ne rek actualité la lépp loo xam ne rek sénégalais yi dañ si am jiixi jaaxa nee naa leen dañuy ñëw seet ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yi nga xamante ni ñoo ngi si dëkk bi di ñaankat di nekk ñoo xamante ni yàlla may xam-xam la ñu daal see waxtaan ak ñoom rek ñu jox ñu si ay njëriñ jox ñu si ay tegtal bu ko defee ñu mën a xam tey nag ñun li nga xamante ni moom mooy Coupe d'Afrique bi euh, Sénégal dem fële sa Cameroun na doon def ab jànkonte bon tey nag moo tax ñu ñëw seet ki nga xamante ni moom mooy euh, Serigne Cissé borom Tawfekh ginnaaw nit ñi ñu koy laaj nee naa leen lépp loo ñuy laaj rek dañuy dem seet si ki nga xamante ni moom mooy ki euh, Serigne Cissé borom Tawfekh mu mën see leeral lu bëree bëri balaa tuuti ñu bàyyi ko mu nuyoo Serigne Cissé ñoo lay nuyu. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki julliti mbokki taalibe yi ñoo ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di njiital ci nuyo bi sëriñ Muntaxa Basiru yàlla yàggal ko fi lool te mu wér ba yéene ji mu am liggéeyal Cheikhul Khadim di sunu bunt sëriñ Tuubaa yàlla defal ko ni mu ko bëggee di nuyu àddina sépp di nuyu senegal gi nga xam fi laay yeewoo di ñaanal tarixa yëpp tiijaan xaadir laa ñeseen ñëpp yàlla defal leen ku nekk yan ba nga yanu rek yàlla ko yàlla eggaleeg jàmm ci barkeb Seyduna Muhammad alayhi salaatu salaam maa ngi nuyu ñëpp di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi ci àddina si rawatina Sénégal gi maa ngi lay nuyu waaleykum salaam sëñ Modou. waaw mbokk yi kookoy Serigne Cissé borom tawfeex gannaaw bu mu nuyoo mbokki Sénégal yi ñun tamit ñu ngi lay dolloo nuyu baax a baax di la di di la ziare waaw sëñ Cissé ba tey ñu jublu si waxtaan bi. Mm. Sénégal nar a dem def euh, li nga xamante ne moom mooy Coupe d'Afrique. Mm. tey jii si Coupe d'Afrique bi est-ce que mën nga leen see wax dara ak gis-gis yeeg yooyu. waa suñ Modou <laughs> balaa boobu sax ñoo ngi siyaare waat kilifa bu baax a baax waa xanaa kay di la wax ni la Sénégal gi dem Coupe d'Afrique bi ñoom koy ñaanal yàlla def ko mu jël coupe bi indiwaat ko fii ci Sénégal ndax ñun ay doomi Sénégal la ànd nag danañ ci wax tuuti loo xam ni gis naan ko ci daal hmm. tamit wax ci loo xam ni tamit doonte xam naan ko ci hmm. ñu mën kaa wax askan bi ndax doomu réew mi mën kaa dégg jariñu ci ndax bu dee Sénégal gi nga xam ne moo dem Coupe d'Afrique suñ Modou daanaka boo xoolee ñu bari dañ woo di ko laaj mhm. daanaka Sénégal li leen gën a sonal boobu ba léegi mënu ñoo jël coupe mooy xeexante bi dafa bari xeexante bi damay dégg parfois ñu sëriñ si buñ yóbbu di sëriñ sëriñ si toog ñooy xeex déedéet xeex bi ci ñoom seen biir lay nekk mhm. ñenn ñi ci waa fédération bi ki jiite fédération bi am na ñoo xam ne dañuy topp ci ginnaawam du ko xeex ngir Sénégal di am ay defet wala senegal dëkk ay jafe-jafe ngir ñuy xeex ki jiite fédération bi naa ba mu ko yore ba léegi mënta def dara ngir ñoom ñu jël place boobu. dëgg bari na ci am ñoo xam ne nag danoo topp équipe bi sëriñ soo xam danoo topp équipe bi fu équipe bi jëm rek ñu ñuy xeex ko te tamit ci réew mi lan dëkk. xam nga loolu nag bu amee ci ab équipe pour équipe ba gañe day jafe. Mhm. mën na di seen coupe ànd bala moo jàpp coupe day metti lool. moo tax ren bu ma doon wax tey jii ñi ŋànk fédération bi kay ku mel ni Auguste mhm. dama koy wax ni ko na jël ay matuwaayam bu baax baax ci équipe nationale bi. Mhm. te xam ne ren lay gën a metti ndax ñu ko bàyyi xel ren dafa ëpp doole ñu ko daan bàyyi xel. te yàqati ren dafa gën a bari. te tamit Sénégal lenn la muy sëriñ si ñuy yóbbu ci Coupe gi dafa bëri sëriñ soo xam duñ sëriñu max ñu mën a ñaan ci football. man nga mën a ñaan te doo mën a ñaan ci football. mën a ñaan te doo mën a ñaan ci làmb. Mm-hmm. kon nag buñ dee wut ay sëriñ nañ wut sëriñ soo xam ne sëriñ ñaankat yi max lan mm-hmm. lu mel ne championnat Sénégal nga jël fa équipe équipe bu Ligue ak Ligue 2 ña jël première ak deuxième nga tànn sëriñ soos yóbbu leen. nga dem Ligue 2 ña fa jël première ak deuxième nga tànn Serigne Sos yóbbu leen. Mhm. ndax ñëpp ay xam ne ñii Serigne ñi mag si lan. kon nag loolu lan war a def wante buñ jël sëriñ su leen neex ñu yóbbu leen ndax buñ ko jëlee Serigne su leen neex yóbbu leen duñ fa amee lu leen neex dana ñibbisiwaat. dëgg la dëgg la wante Sénégal buñ bëggee jël coupe nan defaraat fédération bi. fédération li ñu ko def waxuñu ñu changé ñenn wante ñi ci nekk di xeexante seen biir nan ko bàyyi. Mhm. ñoom benn kii yàqalu leen ñoom ñooy yàqante seen biir ñoom fédération boobu. Hmm. dañuy àndandoo nag di groupe di wax bëgg na ndam ndàngam wante am na ñoo xam ne place bi Auguste yor lan bëgg. Hmm. place boobu ñu yor nag bi Auguste yor na ñu bëgg ko moo tax ñuy xeex max yi am ñoo xam dañuy fay chaque max sëriñ sëriñ bi contre léegi nag moo mu jiite foofu na te xam ne post bi mu yor am na ñu ko bëgg moom moo war a jël ay matuwaay mu mat sëkk sëkk sëkk ci équipe bi. ngir mën a xam sëriñ su baax yóbbu leen coupe d'Afrique hmm. Sénégal boo amoon ay sëriñ su baax am tuuti ginnaaw hmm. moo man équipe yi fi nekk kenn gënu ko ci ay joueur taxawaay tamit taxawaay équipe yi tamit kenn kenn kenn gënu ko taxawaay hmm. ande ñàkk ginnaaw ku baax moom moo tax bu dee si sa wàll naka nga gisee su côté mystiquement maanaam su côté côté côté kii bi taxawaayu Sénégal ak jafe-jafe yeeg yooyu noonu waaw moom laa lay wax nii léegi ma ne la taxawaayam taxawaay bi comme am am ay ay jour ni am na ko am ay jour am na te Sénégal lu neex a ñaanal la wante boo xoolee xeex bi am ci biir nag moom moo tax ba équipe bi day xaw a naqaree ñaanal da ngay gis première match par exemple ñu gañ deuxième match ñu gañ troisième match yi ñu gañ lekk quatrième match ngay gis Sénégal nag day mel ni ku ku am problème jour yi dañuy mel ni dan yeneeni jour la nekk doo leen xàmmeeti sax mhm. nga xam ni kon équipe bi danaa fukki nit bu ndeesul fukki nit di gas fukki nit di suul pax doo ko fa mos a gis. dëgg la léegi nag xeexante boobu moom moo tax pour Sénégal sori ànd Coupe d'Afrique bi buñ ci aman ginnaaw tuuti rek def ci ay ñaan fas yéene bàyyi loolu lépp équipe bi mën na sori. ànd hmm. pour le moment buñ buñ buñ changé wul yooyu équipe bi ah, yéene wuñ ko ko wante tamit mën na ne andiwaat ay jafe-jafe rek an ñëwaat fii rek. Hmm. waaw loolu la daal. est-ce que est-ce que tey jii nii maanaam yàlla dina leen won Euh, Sénégal ba xam dina jël coupe bi wala wala wala fan lay yem ak yooyu bëgg nañ koo xam parce que gars yi ñoo ñoo ma koy sëñ Modou daanaka loolu moom Coupe d'Afrique bi moom am <laughs> na fooy bi sax bi dama ko doon xool ci bagage yi daanaka Coupe d'Afrique moom ba mu kiiyee ba léegi. lan jëleen équipe bi yëpp yi qualifié woon yëpp pour Coupe d'Afrique seet yu seet yooyu yëpp. ba fii may toog nii di wax ak yow. ñaar ñi war a finaalu sax xam naa leen. Hmm? barki Serigne Saliou. ñaar ñi war a finaalu Coupe d'Afrique. barki Serigne Saliou xam naa leen fii ma toog hmm. Sénégal. Hmm. maxim xam naa barki Serigne Saliou Mbacké. ñaar ñi war a finaal xam naa ko maxi Sénégal yi bari xam naa ko. ja <laughs> am ak jafe-jafe xeet yëpp xam naa ko barki Serigne Saliou Mbacké. non mais naka ngeen xamee yooyu yooyu noonu tey jii nii tey tey jii ñi mbokk yi day toog di la seetaan en tant que sénégalais yooyu tamit. Mm. parce que yaakaar na ni boo xoolee ñi nga xamante ni ñoo ngi toog di seetaan man bi ma nee Serigne Cissé laay dem seeti ñu bëri dañ maa jox nopp. Mm. yóbbante ma moo tax ma ñëw seesi la tey maanaam tey jii Sénégal bëgg jël coupe lan la war a def pour mën a jël jël waa moo de li ma lay xam ne moom ñun ay doomi Sénégal la. dëgg la te équipe nationale boobu dafa am ay joueurs yoo xam dama leen di ñaanal. dëgg la kon ñoom ñu am ndam moo may gënal mhm. ndax équipe nationale am na jour yoo xam dama leen di ñaan ñoo may seetaan am ñoo xam dama leen di ñaanal mhm. kon ñoom ñu am ndam dafa may gënal mhm. wante comme ma wax la ni la Sénégal pour mu def euh, am am jël coupe wala mu am kii faw ñu def benn sacrifice bu mag sacrifice waxuma ay kii nii yooyu ñuy wax de mooy ñu jaayante jël xol yi doon doon benn àndandoo doon benn def benn say ñun buñ defan loolu lépp lu ñu teg ci Afrique ñun dañ koy jël bu ñu àndandoo def nii benn xool yëpp defandoo nii. Mhm. ñun lu ñu teg fii dañ koy jël. te équipe bi mani la jar na ay ñaan bu yu bar yu baax daal. Mhm. ay ñaan daal soxla na ko dëgg dëgg dëgg ak i sarax yu am doole pour mu jël pour mu jël coupe d'Afrique wala mu sori ja soxla na ko daal. ndax moment bii nii équipe bi ma lay wax nii la dafa final am na équipe boo xam finalam leer na naañ beneen équipe bi nag moom yene moo mu yeneen équipe beneen équipe bi stop bi war a final beneen équipe bi moom position bi mu taxawee des naa baax mhm. des naa baax wante sagam position am xaw naa baax moo ëppale ñi rek kon da yaakaar ni da ngay xam ne kon tey ji moo gën a pare yeneen équipe yi nag Sénégal moom équipe bi laaj na ay sarax laañ na mystiquement bu baax a baax a baax laaj na tamit mystique bu baax a baax pour équipe bi mën a mën a jël coupe d'Afrique daal mhm. waaw su côté mystique boobu laay duggee rek euh, Sénégal tey jii est que yaakaar nga ni si côté sarax parce que yéen yaakaar naa ni lépp lu lépp lu lépp lu nar a baax wala lépp lu nar a kii si côté sarax lan la Sénégal war a war a mën a génne ba xam côté sarax ba xam dina mën a baax si moom daal. waaw Modou football moom sarax la. Mhm. man boog ni ma koy ñaane sarax la ñi may seetaan xam nañ lool championnat Sénégal yi ñëpp xam nañ ma ndax man sëriñu championnat Sénégal la mhm. équipe bi may seetaan xammee nan ràññee nan bu baax ci ci ci ci ci terrain yi dëgg man damay ñaaneel équipe ba pare ñëw seetaan si la mhm. kon xam naa ñi may wax dinañ si xam lool bu baax a baax mhm. waane man sama sama sama ñaan sarax la sarax sarax sarax la ci match Eh, daanaka yi ma lay defal mooy ay cat ay liggéey nekk ci yow yooyu saafara yooyu laa lay jox wala yoo xam attaquant ñoo koy sangoo ma am benn sarax bu mu war a nga xam dañuy dugal mm-hmm. xam man noonu laay liggéey wante Sénégal nag am na sarax boo xam ne war na di ko génne chaque max mm-hmm. boo xam chaque max boo ko dee génn suñu borom dana def tawfeex loolu nag du ma ko man tax ci internet di ko wax mm-hmm. ñoom ñi nga ñooy ndey mi léegi bu leen ñoree ñoom ñoo may woo ndax doomu réew mi la te réew mi ma tax a jóg te équipe nationale man la dafa am ñoo ciy liggéeyal joueurs yi ñu ma ciy liggéeyal kon nag doomu réew mi bu taxawee wax loolu kon may na mille chance pour ñu jiite mbir moom pour ñu woo laajtoon lan ak lan la def lan ak lan yan jour la non yooyu moom du ma tudd ndax man dama bokk ci ki eh, sëriñ si nga xam ne mhm. suñ borom danoo defal sutura ndax mhm. ab sëriñ akub docteur yam sutura lan war a am daanaka nit boo ñàkkee sutura sa sa dara desatu fa kon bokkoo ak yeneen sëriñ yoo xamante ne daal dañuy toog di di di di man ab jullit la hmm. di taalibeb sëñ Touba juddoo Touba yoro Touba du tëkku kenn te du ma nungu tamit kenn tëkku ma hmm. beneen ba du ma ndamu hmm. ñaarab du ma xaawi sutura man naa xam àddina ak la ca biiram boo ma gisee nga jàpp ne xaw ma ca dara loolu mooy nit loolu nag kippaar gi ma bokk la muy sëñ Touba mi ma bokk moo ma defal loolu xam nga mënoo juddoo Touba yoro Touba yor beneen comportement lépp rek ci taalibe nga koy commencé eggale ko ci taalibe. Hmm. Hmm. d' accord gannaaw bi nga xam ne wax nga loolu noonu si euh, Coupe d' Afrique bi. seex bi dañuy duggaat rek si côté ñaan yeeg yooyu noonu aussi bu fekkee mën ngeen see baaxee <laughs> euh, si wàllum ñaan yeeg yooyu noonu. Hmm. waaw ñaani moom comme Modou moom li may wax rek daanaka moom chaque jour buñ ci dee wax day kii daan daal li may dégg euh, askan bi tuuti. dëgg la muy kaaraange daal laa leen bëgg andil tey gis ngeen lii faarug mbaam àll la. faaroog mbaam àll gi nag daa am bis buñ koy wute te bis ba nga koy wutee da ngay càmmoñ wala mu tëddee nijoor dëgg la waanda duñ leen wax nag nan leen koy tëdd ak suur ban koy wut duñ leen ko wax mhm. wante lii képp ku ko am bu la neexee jëratul ngay sangu dara wala ngay takk dara am na lu muy ànd loo xam ne bis boo ko defee mhm. képp ku la mën a liggéey dana faat mbaam ma ko jële na mu faatoo moom noonu lay faatoo mooy faaru mbaam mooy faaru mbaam àll gi kon kaaraange dafa doon lu am solo loo xam nit ñi war nañ kaa am mhm. kaaraange moom laa la wax Modou boo ko amul jëratul ngay sonn ci àddina. dëgg ndax mën nga di xëcc wërsëg ñàkk kaaraange teye nga jot ci mën nga di ku di xëccoo benn concours wala leneen leneen ñàkk kaaraange tax nga nga bañ cee jot. Hmm. am na yenn faat yoo xam ne boo ko gisee da nga xam ne kii amul kaaraange. dëgg nit chaque jour bul di def nit ñi saa bu bëggee dugg sa jëmm dugg bu ñu bëggee génn. génn beneen bi ci toog mooy yàlla danoo booleek ay nit yoo xam ne ñu ñu ay mbindeef yoo xam ne dan nii gis te ñun duñ leen gis mhm. muy lu mel ni rab wala seytaane wala jinne mhm. ñooñ dan nii gis di am accès dina gis ñuy dox di dajeek ñoom ñoom ñu ne gis te ñun duñ leen gis mhm. léegi nag ñooñu yoon tey jii ne am naa seen saafara bu la rab dalee boo ma woowee incha allah ak nu la mën a def buñ ci déggoo incha allah dinaa la ko faj moo xam jinne la dugg moo xam rab moo xam shayatin nit guddi wante kum ci dal incha allah boo jokkoog man ci kàttanu yàlla dinaa la ko dindil waaw daanaka yi ci des moom mooy noo bi noo moom loolu laa lay wax man la boo bëkkanteeg nit tubaab ak nit ku ñuul laa yemale mhm. buñ si déggoo si kàttanu yàlla dinaa la jubóoleeg moom mhm. sa jabar bu taseeg wala tey ji ngeen dëkk si ay problème ndax am na yoo xam ne rab mooy nekk seen diggante am ñoo xam ne ay yàq-yàq la wante buñ ko seetee lu ci mën a xew rek incha allah buñ ci jubee dana la ko defal ba tey kaaraange moom laa lay wax léegi moo gis nga gis nga boîte bii mhm. gis nga li ci nekk ne ma ko fonke damay gis jamono ji lu baree baree bari di ci xew nga xam ne tey jii nii nit day sàcc daw génn. ñuy hmm. ñuy ñuy xool tànk ba tànk yi jaxasoo tànk ni ñu ñu jël tànkub jàmbur ci bu ko yóbbu ko ci sëriñ ba liggéey ko tànk kooko neewi te fekk na sàccul deful dara. Hmm. waaye gis nga waa mbott la. lii hmm. moom mbott la gis nga dama ko fonk ay ati at mi ngeeg man. dama ko fonk ba def ko ci boîte bi. gis nga nit day sëy sax ay wujjam ti tànk bi yóbbu wala njëkkeem ti bi daan yóbbu ci sëriñ mu jàpp wet gi hmm. jàppale tànk bi def ko saaru paralysé waaye nag gis nga lii am na lu muy àndal loo xam bis bu la ko defalee baraay la ko sa tànk yi fu ne ñett yoon hmm. gis naa ko suñ tubaab mais yaakaar ku ci bu sab tànk day faatu barke alxuraan karim hmm. billaahi la si ku ci bu sab tànk day faatu man kaaraange bu ñu ma cee liggéey dara kaaraange kaara ndax doomu aadama dafa foor yàlla waxee yàlla jooju nag laa jël ba respecté doomu aadama ba hmm. bugguma doomu aadama ñu koy defal dara te réew mi dafa bari noo xam ne tey ji da ngay gis jigéen guy sëy ñu koy xeex ci kër di ko xoqatal di ko defal nangam nangam yooyu nag faaw ñu am matuwaay yoo xam ne faaw ñu leen di dimbali wala nga gis góor goo xam ne sëñ bi daax day nekk ci kër ñu koy xoqatal di ko defal lu ne ngir néew gi doolam loolu nag moo fi war a jeex hmm. moo fi war ku jokkoo man incha allah ñu lay xoqatal wala ñu tegu ñu lay deful dara liggéey bu ma fekk ci nit dinaa la ko dindil te boo bëggee ma delloo la ko ci ki la ko liggéeyal dëgg man Serigne Cissé man maa ko wax wante daal bëgg naa Sénégal gi am jàmm. Mhm. jàmm ji nag mooy liggéeyante beeg iñaanante beeg soxorante bi yëpp dañ ci réew mi. wante képp koo xam ne liggéey nañ la ma xool ne liggéey bi ko fenn lu dul ak iñaan danaa ko jël liggéey bi tegaat la ko yow mi ko tegal. Mhm. te am na xeeti kaaraange wax bis boo ko defee képp ku la liggéey day mel ni dañ ko rocc rek sànni ko ko. Mhm. maanaam yow doo def daal nit lu bon mais. képp ku ñu def lu bon daal bu ñëwee di nga ko saafara. non man moom du ma liggéey nit. Mm-hmm. ay dof ak dee yi ko def. Mm-hmm. ndax ab taalibi la du ma kortu nit. du mm-hmm. duma du ma nit. wante képp koo xam ne liggéey nga nit topp ko di ko liggéey saa moo xoolee gis nga koy liggéey dinaa jël liggéey ba ñamal la ko wan ni kii li muy daj faaw nga daj ko. ñàkk fayda googu daal laa bëgg nit ñi bàyyi ko wante képp koo xam ne moo ngi ci sëyam nga koy dal bu jokkoo ak man loolu dana deñ bàyyi leen nit ñu ñu sëy xale jigéen ñu sëy bàyyi leen xale jigéen ñi ni dootu ci kër gi ñu bana am jëkkër bàyyi leen góor ñi nga ne tey dañuy liggéey am ab liggéey ñu leen di liggéey seen liggéey di yàq seen xel sax du nekkati ci paraas ba dangay gis koo xam ne day liggéey ba mu neex ñaari fan ñett fan mu toog daanaka day wëreelu te moo yor liggéey bu mu war a liggéey mhm. wala koo xam ne xëccoo ab place am ñu koy xeex di ko xeex ba mu ñàkk place ba yooyu nag moo fi dañ mhm. képp ku jokkoo man incha allah bu neexee yàlla dinaa la ci taxal ba loolu lépp dañ ci kàttanu yàlla daanaka tey nag <laughs> dana xaw a andi ci beneen kii ak yooyu noonu mm-hmm. wax ñoo ngi ci tuub sénégalais yu baax di ci jéggulu askan yu baax a baax mm-hmm. ngeen ne daal jàmm moo war a am ci réew mi mm-hmm. sénégal njaay lan wax dëkku teraanga dëkku jàmm uh-huh. waane boo xoolee teraanga jàng waane jàmm ji nekk ko fi Sénégal soxorante bi liggéeyante bi nangam ak nangam. ci suuf dafay bari. ci suuf ci suuf dafa bari da gis ñoo xam dañuy bokk nday ak baay di liggéeyante. nga gis ñoo xam ne ndey ak baay ni bokk yori soxna te soxna yi bokkuñu jëkkër di liggéeyante lool bari na fi nga gis ñaar ñu wujjee di liggéeyante mhm. kon nag na fi jàmm ji am xol yi àndandoo doon benn bu buñ ko defee Sénégal dana neex lépp dana neex mhm. wax na feek ñi ngi def loolu Sénégal du mos a neex te damay wax chaque jour ma ne mhm. yàlla bu ñuy ruusee ba indiwul dara Sénégal tey jii nii suñ nit yi wàll yi te di fii tax wax na kon ba léegi senegal deme ne neneen kon nag sëñ Modou ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanalaat sëñ Muntaxa Basiru yàlla yàggal ko fi lool te mu wér di mm-hmm. ñaanal tarix yëpp Tiijaan Xaadir Laayeen ñaseen ñëpp maa ngi leen di ñaanal mm-hmm. di ñaanal askan wépp jàmm rawatina senegal gii mm-hmm. di ñaanal fa ma dëkk di Touba yàlla defal leen tawféex ak taysiir ak ñëpp boole ko ñëpp ci barke Cheikhul Khadim waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki Sénégal mbokki àdduna nee naa leen comme ni ñu ko daal defee rek chaque jour ak chaque instant ngeen dem indil ñi nga xamante ni moom ngeen soxla lépp nee naa leen lépp lu ngeen dañ koy dem euh, laaj ki nga xamante ni moom mooy Serigne Cissé yaakaar naa wax nañu lu bëree bëri si Coupe d'Afrique bi wax nañu tamit lu bëree bëri si ndaw yi fekk fonk seen bopp ak li nga xamante ni moom mooy euh, kaaraangeek ak lépp lu mu mën doon di leen jox dig dig daje rek ba beneen yoon incha allah rabbi ànd seeg Actubuzz TV la suite d'actualité euh, di Sénégal jaa ngeen jëf